alhamdulillah allahumma salli ala sayyidina muhammadin uxliqa wal xaatimi naasiri lxaqi bil xaqi wal haadi ila siraatika almustaqim ala aalihi haqqa qadrihi yàlla buur la bu rafet bu rafeti melo bu rafet ay melo bu rafeti jëf bu rafet ay jëf bu rafeti tur bu rafet ay tur ku rafet la lu nekk koo xam ne dafa rafet la lu nekk bëggut lu mooy ku ko gis bëggut lu mooy ku ko gis te moom kenn gisu ko lu mooy xaari siine yëpp te ko lu mooy xaari siine yëpp ñoo gis lim lamboo ci taar ñoom ñoo gis lim lamboo ci ay taar ci jëmm ak ci meloo ci jëf ak ci tur ci jëmm ak meloo jëf ak tur tax na ba ñooñu rek a sant yàlla tax na ba ñooñu rek ñoo sant yàlla yàlla nañu ci yàlla boole xam nañu sant yàlla. yàlla nañu ci yàlla boole yaara bi nañ sant yàlla. nañ sant yàlla nañ doolee sant yàlla. nañ sant yàlla nañ doolee sant yàlla. nañ nekkal yàlla. te nañ nekkal yàlla. te nañ ko weel yi tey. te nañ ko weel yi tey. yàlla amul dayoo seyru amul dayoo. yàlla amul dayoo seyru amul dayoo. kon nag. kon nag. boo ñëwee ci sëriñ. boo dikkee ci sëriñ bu la bëgg a jëriñ waxu ma bu la bëgg a sëriñ bu la bëgg a waxut ba la bëgg a nag dafay bëre ba nga jeex ci yàlla day bëre moom sëriñ ba ba yow mi ko dikkal nga jeex tàkk ci yàlla ndax feeg jaam jeexut ci yàlla ndax feeg jaam bi ci yàlla bokkaaleem daña gut ak bokkaaleem daña gut fokk nga jeex ci yàlla pour mucc ci bokkaale fokk nga jeex ci yàlla tàkk soog a mën a mucc ci bokkaale fokk nga jeex ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fokk nga jeex ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu ko mooy lu mooy loolu ay maqaama ngay ñëw ci gannaaw ay maqaama ngi ñëw ci gannaaw te te sayru bu matee ba nga delluwaat ci saatu su matee ba nga delluwaat ci saatu bu fekkutoon nga jeex ci yonent dootoo xam ku yonent bu fekkutoon nga jeex ci yonent dootoo xam mukk kuy yónnent. te ku xamul yónnent la jotee yàlla dara. te ku xamul yónnent boobu doo jotee yàlla dara. mooy buntab yàlla ku fa jaarul doo dem. loolu moo di buntab yàlla. yónnent bi mooy buntab yàlla. ku fa jaarul yónnent bi mooy buntab yàlla ku jaarul ci moom doo dem. dañ bëri ba nga jeex bi ca sëriñ bi. na bi la bëgg a jëriñ dana bëri ba nga jeex ci sëriñ bi. sëriñ bi la bëgg a jëriñ dana bëri ba nga jeex ci sëriñ bi. ndax moom itam ndax moom itam su maqaama yi ngay yóotu si maqaama yi ngay yóotu si bu sa seyru taxawul bu sa seyru taxawut da nga mujj soo jeexu doon ci sëriñ bi doo xam kuy sëriñ da nga mujj doon ci bi doo xamante kuy lii moo tax de looloo tax de seen njëlbéeni seyru seen njëlbéenu sayru liñ leen di itteewool liñ leen di itteewool mooy jeex ci yàlla takk mooy jeex ci yàlla takk jeex ci yaari melo yooyu takk jeex ci yaari melo yooyu boo jeexalee boo jeexalee te dox ci melo yàlla yi tey dox nag ci melo yàlla yi ak tuddi yàlla yi ak tuddi yàlla yi te jaar ci xay bu yi nga war a jaar ba jaar ci xay bu yi nga war a jaar dañ lay jëf bu xat yoonu ñaareel nga dellu ci faatu dañ lay jëf bu xat yoonu ñaareel nga dellu faatu da ngay fekk nag dëgg dëgg doo mën a am dara lu am lu may jëm yàlla ji ndax dëgg dëgg loo xam ne du man a xam mukk lu may jëm yàlla ji te nekkuloo ci fanaawam te kat taxul nga waaye da xam ne dana nekk ko rek waaye dana la wóor sëng ne dara nekk du tax nga fakk yonent bi waaye du tax nag nga fakk yonent bi ci melow yàlla wu jëkk ci melow yàlla wu jëkk du tax nga fakk sëriñ bi du taxit nga fakk sëriñ bi ndax melow yàlla la ndax melow yàlla la waaye nag dootoo leen gis mukk waaye nag dootoo leen gis mukk de dootoo gis seen jeexit dootoo gis seen jeexit jëm yàlla ji rek ngay gis jëm yàlla ji rek ngay gis ñoom boo leen gisee jëm yàlla ji ngay gis ñoom ñoom boo leen gisee jëm yàlla ji ngay gis ci ñoom ma ne ci sama njëlbeenu sayru bàyyi mu ne ci njëlbeenu sayroom am naa diit bu yàgg di wax ne man daal xaw ma fu Cheikh Tidiane mën a jaar ba gën bu yàgg di wax man daal dëgg dëgg xaw ma fu Cheikh Tidiane mën a jàpp ba gën ma ba nekk sama sëriñ ba ba mën a nekk sama sëriñ gannaaw ga la ma ko yàlla xamal gannaaw gi nag mu ne la ko ko yàlla xamal ma ne moo mooy sama waasitatu ci ci maaga mu ne nag mooy waasitatoom kon ci fi mu àgg bi mu nekkee sama waasitatu rek wasaatatu boobu la ma la ma bi rek wasaatatu boobu la ma tuddee ba nekk sama sëriñ wasaatatu boobu moom la ko tuddee ba nekk si sëriñam xam ngeen maj doob yàlla dana koy jay lool ci maqama xam ngeen ne maj doob yàlla dana koy jay lool ci maqama te dëgg rek la wax te dëgg rek la wax kat ndax ku nekk ci téyeb yàlla bi nga xam ne mooy lépp moo moom lépp ndax ku nekk ci téyeb yàlla bi nga xam ne mooy lépp te moo moom lépp bu feeñ bu la feeñoo bu la feeñoo wala na lépp lu ma am yow laa ko may wala na lépp lu ma am yow laa ko may da ngay wax ne yàlla may ma lu mu mës da may kenn te dootu ko may kenn da ngay wax ne yàlla may na ma lu mu da may kenn te dootu ko may keneen nag loolu maj soom dana koy wax loolu maj soom dana koy wax ku ko dégg defe ne mustahil la ku ko dégg defe ne loolu dafa jomb ñi xamut defe ne karaama yi jagoo benn sëriñ la ñi xamut defe ne ndax ne karaama jagoo la fekk maj fa bu ne jaar na foofu fekk maj fa bu nekk jaar na foofu maj fa bu ne taxaw na taxawaay boo xam ne wóor na ko ne a maj fa bu nekk taxaw na taxawaay boo xam ne wóor na ko ne yàlla jox na ko lu mu mës a jox kenn te mosu ko jox kenn te jëliyaatu yàlla yi te jëliyaatu yàlla yi nag xaarifina yi daje ñoom xaarifina yi dajeeg moom ku nekk tëjëli ba moom te kenn dootu dajeeg moom ku nekk tëjëli ba nga dajeet kenn mosu dajeeg moom te keneen dootu dajeeg moom te terewul yàlla kenn la rek te terewul kat yàlla kenn la moom la alxuraan di wax naa wa a jibaala taxsibuhaa jaamidatan wa hiya tamurru marra saxaab yaa ngi janoog doj yi mu ne yaa ngi janoog doj yaa ngi defe dañoo taxaw yaa ngi defe dañoo taxaw te ñu dox dox bu gën a gaaw sax bi nii di dox te ñu ngay dox dox boo xam ne a gaaw dox bi nii ci kaw foofu ci la aarif di xamee ne foofu nag ci la di xamee ne jëmm ja bàyyeekoo néegam ñëw fii ci jotaay bi jëmm ja bàyyeekoo néegam ñëw fii ci jotaay bi ak bay ñibbi bu jotaay bi tasee du benn ak bay ñibbi bu jotaay bi tasee duxul benn te jëliyaat yaa ngi rek te jëliyaat daal mu ngoog ci dem rek ma du yàlla ala feeñu ci kii te du duxul ne yàlla ala feeñu ci kii yam benn feeñoo ngoog wéy na benn feeñoo ngoog wéy na mu feeñu xaat la ci mu feeñu xaat la ci bu ñaareel bi dugub bu njëkk ba bu ñaareel bi xam nga kenn la ñu bu njëkk bi yàlla feeñu ci baay bi yàlla feeñu ci baay bi moo feeñ ci doom yi moo feeñu xit ci doom yi tëjëliyaat yi bokkul xam ngeen ne tëjëliyaat yooyu day bokkul loolu tax ba doom lu mu nidu nidu bàyyam xam ñu wute dara loolu moo tax doom lu mu nidu nidu bàyyam fokk mu xam lu mu wute ay mbokk bokk ndey bokk bàyyi ay mbokk bokk ndey bokk bàyyi fokk am lu ñu wute fokk rek nga xam lu ñu wute ndax tëjëliyaat lu tax tëjëliyaat yi dañoo bokkul bokkul dañoo wute mbooloo mi génnoon ci néeg yi daje fii mbooloo mi génnoon ci néeg yi dikk daje fii. yooyu a yàgg. mbooloo dem nañ bu yàgg. ñeneen ñeneen a fi nekk. ñeneen kat ñoo fi nekk. bu jotaay bi tas ñeneen a fi bu jotaay bi tasee ñeneen a fi jógee. ci xàq tajaliyaat yi ci wàllu baatin kay. ci xàq tajaliyaat yi ci wàllu baatin. waxuma ñi ñi way nag duñ gis lu may lenn. waxuma ñi way nag nga xam ne duñ gis lu may lenn. duñ gis lu may masaayir gisuñ dëgg-dëgg bi. duñ gis lu may masaayir gisuñ dëgg-dëgg bi. ci kaw loolu. ci kaw loolu nag. lépp lépp lenn li la lenn li rek la lenn li mooy lépp lenn li itam mooy lépp ca asal ba ca abat ca asal ba abat ñun jaami yàlla lañu ñun jaami yàlla lañu yoo xam ne jaami yàlla yoo xam ne dañoo dëkk di xaajo jëm ci yàlla dañoo dëkk di xaajo jëm ci yàlla jëm ci jëm yàlla ji jëmit yàlla ja ndax dëgg-dëgg jëmm yàlla ji rek a ñu doy ndax dëgg-dëgg jëmm yàlla ji rek moo ñu doy leneen lu mu ñu jox leneen lu mu ñu jox nag lu mu rëy rëy lu loola rëy rëy dana jeex ñu soxlaat yi dina jeex ñu soxlaat leneen lu mooy jëmm yàlla ji lu mooy nag jëmm yàlla ji maa ngi ñaan ci fan yii bàyyi ngi ñaan ci fan yii maa ngi ñaan xiwu yàlla mi ngi ñaan xiwu yàlla ma gis ne xiwu yàlla du ma jëriñ dara bàyyi gis ne moom yiwu yàlla jëriñu ko dara ndax dafay jeex ma dellu soxlaa ndax dafay jeex mu dellu soxlaa yërmande yàlla du ma jëriñ dara yërmande yàlla it mu gis ne du ko jëriñ dara dafay am fu mu yem ma dellu soxlaa ndax day am fu mu yem mu soxlaa ngëneelam noonu ngëneelam tam noonu rek mayam noonu ak mayam itam noonu lii lii jëriñ daal lii jëriñ nag nga xam ne boo ko amee nga xam ne loolu boo ko amee dootoo aaju mukk dootoo aaju mukk mooy jëm yàlla ji rek mooy jëm yàlla ji kon nag yàlla ñu yàlla may yàlla kon yàlla nañu yàlla may yàlla yaa rabbi leneen lu mu ñu may rek dana jeex leneen lu mu ñu may lu dul loolu dana jeex leneen lu mu ñu may danañ tàggoog moom delloo aajo leneen lu mu ñu may danañ tàggoog loola delloo aajo ha bon yàlla nañu yàlla may yàlla kon daal yàlla ñu yàlla may yàlla yaa rabbi loolu rek a ñu mën a ndax loolu rek a ñu mën a jël waxoon na ne Moussa waxoon na ne sama borom yow sama borom lépp loo wàcce ci man lépp loo wàcce man ciw yiw ciw yiw aajo naa ko aajo naa ko waaye booba damay gone rek. waaye booba kat bu muy wax loolu day gone. waaye ba mu matee. waaye ba mu matee nag. jëmm ji la ñaan rek. jëmm yàlla ji rek la fax ñaan. rabbi arini anzur ma gis ne. lu jaam ñaan. lépp lu jaam bi ñaan. soxla na ko. soxla na ko. waaye su ko amee du tere mu soxlaat waaye bu xamee kat du tere mu soxlaat leneen. lu mooy jaam am yàlla rek. lu mooy jaam bi am yàlla. yàlla nañu am yàlla. yàlla nañu am yàlla yaa rabbi. yàlla yàlla may yàlla. yal nañu yàlla may yàlla yaara bi te dig nañu ko te yàlla dig nañu ko fët ne nañu wax nañu ne am ci fuqaraa ilallah ne na ñun ñëpp dañu xaajo jëm ci yàlla ne na ñun ñëpp dañoo xaajo jëm ci yàlla xaajo gi doomu aadama xaajo jëm ci yàlla xaajo gi doomu ji xaajo jëm ci yàlla doomu aadama rek ko xaajo doomu aadama rek moo ko xaajo moom dafa xaajo jëm ci yàlla xaajo goo xam ne doomu adama dafa xaajo jëm ci yàlla xaajo goo xam ne amul dayo amul dayo te aajo googu du jeex mukk aajo googu du jeex mukk yeneen yi ci des noppalu nañ yeneen yi ci des noppalu nañ bàyyi ma yeeg jamaat yeeg yooyu bàyyi ma yeeg jamaat yi ak yooyu ndax seen xel nekkut ca la ne foofa ndax ñoom seen xel nekkut ca la nekk foofa waaye ku xas yàlla hubbil xam ne yàlla hubbi na sa bëti xol da nga sapp jëm ca la nekk foofa ba nga sapp nag jëm ca la nekk foofa yow am nga soxla soo xam ne dootoo ñàkk soxla mukk yow am nga soxla boo xam ne dootoo ñàkk soxla mukk kooku mooy doomu adama kooku moo di doomu adama yàlla dellu ko wax ne bind na ko def ko muy ku néew doole yàlla dellu wax ne bind na doomu adama def ko muy ku néew doole néew dooleem googu mooy sopp gi mu sopp yàlla néew dooleem googu moo di sopp gi mu sopp yàlla bëgg gi mu bëgg yàlla bëgg yàlla te yàlla te yàlla li ci aarif bi bëgg li ci aarif bi bëgg dëgg-dëgg mënu ca mënu ko am dëgg-dëgg mënu ko am moo la ñuy def yàlla lañ bëgg mënuñ cee jot moom la ñuy def nag ñun yàlla lañ bëgg mënuñ cee jot. bu dindee kii daay yëpp ba dara doxul suñu diggante moom. bu dindee kii daay yëpp ba dara doxul suñu digg ak moom. mu ñàkkal ñu ba ñu nekkatuñ fa. mu ñàkkal ñu ba ñu fa nag sax. la ñuy ñu may. kon nag lim ñu may nuñ koy jëriñoo. ñun doomu aadama. ñun doomu aadama. danañ bëgg aw ñam. danañ bëgg ñam. ñu lekk ko mu neex ci ñun. lekk ko mu neex ci ñun. mënuñoo lekk yàlla. mënuñoo lekk yàlla xam ngeen ni. danañ bëgg ak naan gu neex naan ko mu neex ci ñun. danañ bëgg naan gu neex gu sedd. naan ko mu neex ci ñun. mënuñoo naan yàlla. xam ngeen ne mënuñoo naan ñu lekk ko mu neex ci ñun. lekk ko mu neex ci ñun. mënuñoo lekk yàlla. mënuñoo lekk yàlla xam ngeen ni. danañ bëgg ak naan gu neex naan ko mu neex ci ñun. danañ bëgg naan gu neex gu sedd. naan ko mu neex ci ñun. bëgg ñoo naan yàlla xam ngeen ne mënuñoo naan yàlla bi danañ bëgg jigéen ju rafet denc ko danañ bëgg jigéen ju rafet denc ko ñu ngi jot def ko jabar wala jëkkër xam ngeen ne mënuñoo jot ci yàlla ba def ko jabar wala jëkkër wala jëkkër waaw te moom rek lañ bëgg te ñun kat moom rek lañ bëgg waaw fu ñu jëm nag kon nag ñun fu jëm ngeen xam ne ngeen xam ne bëgg giñ ko bëgg nag bëgg googu ñu ko bëgg nag moo ñu bëgg loo lépp luñ bëgg moo ñu bëgg loo kat lépp luñ bëgg dañuy julli dañuy julli. bëgg yàlla ñu ca dugal. bëgg yàlla rek moo ñu ca dugal. dañuy xoor bëgg yàlla ñu ca dugal. bu ñuy xoor bëgg yàlla rek dañu ca dugal. bu ñuy joxe suñu alal bëgg yàlla ñu ca dugal. bu ñuy joxe suñuy alal bëgg yàlla rek moo ñu ca dugal. bu ñuy lekk wala ñu naan bëgg yàlla ñu ca dugal. bu ñuy lekk wala ñu naan. bëgg yàlla rek moo ñu ko dugal xam nag mënuñ koo lekk mënuñ koo naan xam nag yëpp nag mënuñ koo lekk moom mënuñ koo naan waaye mënuñoo lekk leneen mënuñoo naan leneen waaye mënuñoo lekk leneen kat nit bëgg giñ ko bëgg mënuñoo naan leneen yëpp bëgg giñ ko bëgg waaye moom bu nekkee naan sax ñu bëgg ko naan waaye moom bu nekkoon naan sax ñu bëgg ko naan bala ñoo bëgg a naan bala koo bëgg a naan bala ñoo àgg ci moom ba naan ko fekk ñu ñàkk ba neetuñ bala ñoo àgg ci moom ba naan ko fekk ñun ñu nekk ba ñëkkatuñ ko duñ mën a naan xanaa xalaat gi ñu xalaatoon xanaa kon xalaat gi ñu xalaatoon bëgg naan rek bëgg naan moo ñu mandiloo xanaa bon loola rek moo ñu mandiloo ibnul faaril wax na ne ibnul ibnul faaril wax na ne ibnul ngi ndokkeel gaañi mi ngi ndokkeel gaañi waa pay bi ñoom ñi mandi ñoom ñi nga xam ne dañoo mandi ci yàlla ci yàlla te naanuñ ko te naanuñu ko it xanaa dañ ko hitte rek xanaa dañ ko hitte woo rek boo ko bëggee naan rek mu ñàkk loola far soo ko bëggee naan rek yow nga far ñàkk far ba nag bëgg naan gi mooy sax naan. kon day bëgg naan gi rek moo mën a def ak naan. ci nga mandee. ci nga mandee kon xanaa. boo àggee ba naan ko rek fekk na moom boo nekkatu fa ndax nekkatu. boo àggee ba naan rek yow nekkatoo ko. nekkatoo ko moom nekkatoo ko. yow nekkatoo fi moom mi ngi doon naan it nekkatu fi. tuuti ci kiidaay daal mooy am nga soog a mën a àgg ci li nga bëgg. tuuti ci kiidaay daal mooy xam nga a mën a àgg ci li nga bëgg. moo tax. looloo tax mbëggeel mbëggeel di rey aarifiina yi di rey aarifiina yi liñ bëgg dañ ci àgg mukk ndax liñ bëgg duñ ci àgg mukk waaye foofay dayo bi waaye nag foofu kat mooy dayo bi yëf nañu bàyyi ñu dem gaa yi nañu bàyyi ñu dem bàyyi leen góor yi ñu dem ñun waruñ xalifa yàlla mu ne ñun waruñ xalifa yàlla yàlla la ñuy wër waaw waruñ xalifa bàyyi bàyyi def la ñuy wër gaynde kiiru dawoo janax yi buñ sabandoor du tax nga daw noppi leen waaye xew si leen di